aja l'entrée de Sélémélé mele Asipao Diane tegal na ko poften toj na beneen poften mu toj beneen mu toj cey làmb làmb ak la mu làmboo Sélémélé Asipao Diane meke kam ngal ne let mange waaw fii ci lat menge lay xewe de Selemele Asipa Ojan. Thank you. Alo. sele ngay bind la muy bind lan la alxuraan la wala